نبينا ستر دوي واجا وإمام المرسلين أنا نبغ محمد رسول الله وموين أي واي واي أناي أي واي محمد رسول الله صدوم غن شدام مود عبد الله صدوم جوجي moom mooy muhammadu rasulullah ina mama yon cala muhammad mooy xaatimi nabiyinaay wa imamul mursalin masalun sifati kalinnaasi kama masala nujum yalmaw bilay jammuduna yow yaay muhammadu rasulullah anta mooy yonent bi kullu fadlin fa maatas duru ilaa andawi kalladu waaw na ñëpp def ni ñu magal muhammadu rasulullah la kazaatu lay sa turandoo yonent bi وإمام المرسلين ما مدد مم ينتبه فدرة من الرسل إلا باشرت هما بك الأنبياء صدم جوجه مم محمد رسول الله تتبهوي بك الأسر وتسمو بك الياو وامدا وواي الياو واتنان يا ياسين سترندو دو كن كدل محمد رسول الله كفرك مم دومر وبدل الوجود منك كريم مم يننتبه من كريم أبواي كرماو أي نخصبول تخصبوله الله بله الله أي خلدت anu jaw ma jaw saawoy mubla abdoulaye baayu nabi yasul wujudi balak maram kulli bi judi balak maram wajal wujudi faw xale daay ay waay xabli bi daadaay borom belal xuduli murada yaa ma na faada kiraay samam janaan waskur xilaab mi wamat kalaami billaa soog a lijjanti bu la yuuxu soxna ki ne abdoulaat ku la xool xam ne yaay sëñ abdoulaat nga ànd ak nag sa kër bu baax bii di alaaj idi caam man xam alaaj idi dama bëgg ko bëgg naa ko ngir jomom fullaam faydaam ngorom waaye di mu def sunu mag ju baax jii di xaar yu ndax ñun ku tëral benn géwél tëral nga géwél yëpp ku toroxal benn géwél toroxal nga géwél yëpp te ñetti ñi si ñoo tàqalikoo buur sëriñ géwél bu jëf jotee buur jëf bu ñaan jotee sëriñ ñaan bu wax lu baax jotee géwél wax ko te alaaji xaadim sàmm sunu mag yi noonu ngeen ànd ak moom muy ku baax di ku gore di nit ku yiw di la gërëm nag bu baax a baax a baax ci fonk gi nga fonk nit ñi ndax nii kii nga dend sama jigéen bi di soxna Kiné Mbaye Dia di nit ku baax di suñu kóllëre di suñu jigéen ak sa xaritu wëllëre yi nga àndal démb ba tey dara soppeekul Mbàkke ñi ngi lay ñaanal yal na yàlla guddal sa fan wéral say cër enveloppe bi ma yor amicale des sages-femmes hôpital Aristide Le Dantec muy amicale bi religieuse bi soxna Khady Gueye jiite ko ñu def une forte délégation ñoom ñoo def seen barkeelu ñu ni ñoo la jox addiye ji di la ñaanal ci barke Serigne Touba rek nga ñaanal leen ndax association bi gën a jëm kanam lu ñu song daan ko ci barke Serigne Touba xam nañ ñi mën nga ko yàlla na nga ko def te boo ko defee dina sotti ci barke Serigne Touba jër Mbacke ñu ngi lay sant di la gërëm jërëjëf Alaaji di Caam jërëjëf sama nijaay ñu ngi lay sant baax di la gërëm. jërëjëf Boyul. Saare bi ngeen soxna ki ne nee na jërëjëf ji wax ji. kon mbokk yi baax na mbokk yi soxna si nee na ñu jël kàddu gi. jox ko suñu baay gën a màgg di ko jagleel ki yàlla jox la gën te gën a màgg moo di Mawlaana Seyxul Xadim di wax ni ñoo ngi nuyoo nuyoo bi gën a tedd di gën a sell di ko jëmee ci soxna Kiné Mbàkke buñ ko nuyoo moom rek siyaare ko ci bis bu tedd bi day mel ni dama ne ci julli julli nag ku jóg faawu nga tari Faatiha te kew saar loolu mooy kàddu yi jiitu rek ku jóg doo ko mën a moy loolu moo tax ma wax ni ñu ngi nuyu soxna si Alaaji Idrissa di ko nuyu ca di ko sant ndax yaakaar naa ni loo xam ne cëb ànd ngir jëmmi sëriñ Touba ëpp na ñeen fukki at te waxtu wu nekk rek te nanu ànde woon day gën di rafet te lépp di moom di soxna si ci sëriñ Touba rekk bëgg ko ak di ko liggéeyal naka jekk ci loo rek la ma sa nekk ñuy ñaan aw fanam gudd lool te ànd ku wér موت مبارك ولد شيخ ناسك واليوم اثنين جك عني به في جربلي سرين محمد الأمين دغنا موم كدون أمين لا جانغلو فوزدي كمين شيخ بامبلي دو دمالي آية الفرق اللي وسر بي بي لواحد سنجي بي mu ahlu xarnu bi jox ka demoon ba baafale keroog sëriñ bi bég na lool guddig bi san ba bégle lool ña doon xasiida farlu lool mu leen di jox berndeem le te naa damay gatandu gan gama sama borom digoon moo war a ñëw tey bisan ba moo di bis bile yónnee na Njaambur ak Kajoor yónnee Jolof ba ñépp buur bataaxalam deesu Kajoor wax na keroog ci moom le ku jëf ci moom mu fay man ku jëf ci moom ma fay man aw turandoom fay la ka man moom it mu fay la moom ki man Cheikh ku man turam wi mucc na soppeem ya seen mbir sotti na ëllëg ñu tàbbi aljana tuuba këram gu maggile turam wa day ramuy kuréel keroog ba buur bay teral ña am cofeel ga tey biral ñu baax ña gëm turam wi le nee na nday say nee na si nday say nee na mi ngi lay gërëm nee mi ngi lay sant yàlla xam na ni tey juróomi réunion la am. nee na tey jii dafa am juróomi réunion. nee ma 21h bu mujj bi 21h laa koy tàmbali. nee la koy tàmbali. teemaa bàyyi bu jeexee ma ma ñëw. ne ko woon sax ndey teemaa bàyyi bu jeexee géwél la koy génn de. mu ne ko 21h géwél na loolu. waaye nee na soxna ki ne na loolu. mu ne ko kon nag day faatu àndal ak aji mareem ngeen dem. heure bu réunion bi tasee. nee na heure bu réunion bi tasee. naka ma fa xaar ba ma ñëw. naka ma fa xaar ba ma ñëw. ma ziar soxna si nee na ndax danoo bokk ndey bokk Serigne Touba bokk soxna maam Fatou Mbacke Marème Lo bokk soxna maam Fatou Mbacke Marème Lo nee na day jóge fii Ndakaaru di ko fekk màggal ga ca Touba nee na ku lay fekk màggalu Touba màggalu Ndakaaru du ma ta wax nee na bu ñëwul am na lu ko téye nee na ziar baa ngi nii mi ngi lay sant di la gërëm.